mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu seen mbokk dara Abdoulaye Guèye moo leen di nuy di leen ziare ci suba talaata ji di ñaan yàlla mu defal ñu bëccëgu jàmm nangul ñu suñu jàmm yàlla def ñu dëgg-dëgg jullit waaye sàmmal ñu suñu iman ba mu bañ a rëcc bu ñu demee mu mën a bég si ñun bu baax moom suñu borom ñu bég ci moom waaye yàlla ñu musal ci jàngoro bi macha allah. yóbbal tey bi dafa ñëw rek di ñu xamalaat suñu bopp rek ndax nit xam sa bopp dafa baax. wolof day wax ni xam sa bopp moo gën toog bañ lay woo di la wax yow yaay kan moo tax nag mu bëgg rek nga xam sa bopp pour de bon bañ a fiyewu rek ci nit ñi di wax mu ni xad yusiu baadu nnaas bi ka dann wa qad yadunnuka axaruna athar min maa il gamaam walan yanfauka haulaai walan yaduruka ulaik almuhimu xaqiqatuka nee na nit ñi moom kenn xamul seen mbir nee na ngay gis nit ñoo xamante ni dañuy ñaawal njortu ci yow maanaam di la seedeel lu bon jàppale daal nit ku bon moom daal amul dara lu positif ci yow ñoom daal jàpp na ni yow mii doxoo lépp lu ñaaw ñu dëkkale la ko lépp luy melokaan bu safaanu ñu féetale la ko njott lu bon daal bu ñaaw rek la ñuy am ci yow am na nit ñoo xam ne noonu la ñuy mel yenn saa yi sax du la xamal dara mais naturellement rek lan la wóolu ñàkk wóolu ba lay sosal loolu mu ne am ñeneen ñoo xamante ni nag ñoom jàppe nan la ni la yow moom yaa gën a sell yaa gën a leer ndox mi nga xamante ne mu ngi wàcc sax ci asamaan si ginnaaw niir bi nee na am na ñoo xam ñoom noonu lan la jàppe yaa gën a leer ndoxum taw kon gis nga ñaar ñi ñaari extrémité la kii fu bon yegg yeggale na la fa kii fu baax yegg yegg na yeggale na la fa mun la nag kaay nag ma wax la boo bëggee noppalu nee na ñi nga xamante ni ñoo la jàppe ku baax ba fu ñu toll di ko wax noonu nee na duñu du ñu lay jëriñ te di la ko wax noonu rek bul tax nga defee loolu moo lay jëriñ benn mag bu baax wax na ni moom dafa yéemu ci koo xamante ni waman yata yaqinahu limal wara yadunnahu fika fa xumrun nee na ki nga xamante ni moom day bàyyi li ko wóor ci boppam jàpp li ko nit ñi di wax yoo xam nga ni ko doy waar nga waaye nit ñi foogee la ko baax di la ko waxal nga bëgg a wëlbatiku di noonu ndekete man kat li may def du lu bon li nit ñi foog ci man moo baax loolu wax dëgg yàlla ne kenn gënu laa wére di kenn gënul laa rakkaaju nit da xam sa bopp mun ko nit ñi lay seedeel nit ñi la jàppee ku baax nee na jariñul la de waaye nee na ñen nit ñi lay bañ ba tax ñu lay njortal lu ñaaw it nee na ñooñu it loruñu la déedéet bu la ci benn jaaxal nee na li am solo almuhim mooy li nga xam ci sa bopp waaw nit moom balil insaanu ala nafsihi basira nit ku ne yaa xam sa bopp waaye yàlla nee na wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid maa la gën a jege sa buumu xol mun ko li nga xam sa bopp mooy lii dëgg ci yow ak li nga xamante ni sa boroom xam na ko ci yow kon gis nga lii nit ñi di wax yëpp bu la ci dara déranger tagg yeet bu mu la tax di tiitaroog defe ni nii nga mel ak meloo noonu nee na daal yow li nga xam sa bopp na la doy ak sa borom xam ci yow yàlla na yàlla may xel mu rafet noonu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu